salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. salaam soxna si maa ngi leen di fay. la jaale li nga xamante ne loolu la ñu bokk nga mën ñu ñëwalaatal ci lan nga ci bàyyi euh, Serigne Modou. waaw Serigne Modou moom soxna si nit ku baax la nit ku yiw la nit ku yaru la nit ku am yërmande la nit ku maanu la sëñ Modou nit koo xamante ne looy am yéene ko sëñ Modou boo gisee tey jii promoteurs yi. di dem bay tëgg mercredi yi moo fi njëkk a indi làmb mercredi yi parce que bañ a xëccoo du xëccoo dara sëñ Modou daal man nag sama lépp la mënumaa wax si moom parce que sama xol dafa tooy barki bi sëñ Modou moom bu may wax ci moom mu yàgg du baax si man vraiment vraiment vraiment nax nañu daal ba dem yàlla. sëñ Modou moom mu dafa feebaroon wala feebar bi yàggul ci moom. daal. feebaru feebaru feebaru kii yooyu rek feebaru maanaam feebaru ndakaaru rek la feebar waaw yaram wi moo xaw soofoon rek waaw. kañ la ñëw fii ci hôpital bi. xam naa ni daal ndax man wax dëgg yàlla mun xaw mu kañ la ñëw ci hôpital mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi doon déggante bërki démb xam naa daal bërki démb trois jours daal la fi am waaw. kon ñu dégg que ne moom moo waroon tëgg sax làmb ji nga xam ne moom la ñu amal suba. tey jii du suba de tey tey jii ko yàlla moom tey jii moo waroon a tëgg journée la tey jii moom moo waroon tëgg waaw. d'accord nga baal ñu bi nan la. man maay Papa njaay ay Mboup man maay Papa Ndiaye Aïda Mboup di lépp sëñ moodu sëñ moodu fu ne dem ànd nañ fa fu mu mës a tëgg làmb ci ci ci àdduna ci Sénégal rek maa moom ñoo fa ànd muy Casamance muy Kébémer muy neew muy Kolda muy Mbour muy cees foo wax rek foo xalaat rek fépp foo xalaat rek nii sëñ moo tëgg na fa làmb neel Papa Ndiaye de mu moo yooyu làmb ja bañ na ko ba da ko doon wax man sama diggante ak Papa Ndiaye de lépp lu ma sama lépp ci làmb moom la waaw. sëriñ Modou moomu yan kàddu ngeen mujjee weccelante yéen ñaar. ma xam nga sëñ Modou ñun chaque jour ñuy waxtaan chaque jour ñuy waxtaan mu ngi mi ngi may xamal ni dafa ma bëgg réew mi di ko seede ma koy xamal ni dama koo bëgg réew mi di ko seede sëñ Modou chaque jour ñu ngi waxtaan te saa ñu waxtaanee mooy góor góorgóorlul muñalal sa njaboot jàppalal sa njaboot maslaawal goreel nekkal fa nga nekk parce que sëñ Modou boo gisee mu gën koo jàpp dati si gor dafa ànd ak président lay Wade yàlla def mu wàcc teewul mu continuer di ànd ak moom lu ne gis na ko pour mu pour mu pour mu déplacer wu mu gor la ciment la benn yoon lay tooy yàlla def ni sëñ Modou sunuy wël sunuy sunu waay sunu woy jur yi la woon sama yaay ak yaayam la ba pare ñoo bokk koñ muy sama lépp waaw vraiment sëñ Modou daal mu ngoo rek. la koy jaale bu baax a baax di la jaajëf. maa ngi leen koy jaal yéen itam di ziar bu baax jërëjëf. salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa ñu ngi sant alhamdulilah. ginnaaw ba ñu la jaalee ki nga xamante ni moo di Serigne moo Niang nga baal ñu fàttali ñu tur bi. Euh, man birim lañ may wax mais Mamadou Gueye laa tudd. Hmm. yan témoignage nga ñu mën a jox ci promoteur bi nga xam ne moo di Serigne Modou Niang. Serigne Modou Niang di xamoon nañ ko ci mbaaxam yaatuwaayam ak dimbali doomu aadama loolu lañ ko xamee woon bëgg ay mbokkam aussi waaw loolu daal moom lañ ko mën a xamal suupal nag dal loolu lañ ko xamal waaw. sëñ Modou ñaa feebar bi daf ko yàgg daaneel wala. daanaka da yàggul nag yàggul parce que fii amu fi ay fan amu fi ay fan. mën nañu xam kañ la ñëw ci hôpital bi boo ci mën loolu nag moom mënuma leen cee tontu xanaa bu ngeen yeggee ci biir xëy na am ñu gën a mën a placé muy ay doomam walla ñu ko gën a jege mën nañ la wax bañ na kii. tey mu mel ni waa Axlu Lamb ñàkk nañu promoteur bu mag. waa Axlu rek ñàkkuñu maanaam tëgg yi ñoo ñàkk bijouterie yi ñoo ñàkk parce que ñun ci tëgg lañ ko xamee ba ni muy nekk promoteur waaw. yan kàddu témoignage nga ñu mën a jox. ah témoignage xanaa yal na ko yàlla xare àjjana remplir na mission am ñu ngi koy sant di ko gërëm yal na ko rek loolu rek lañ. ñu ngi lay jaajëfal di la ko jaale. jërëjëf maa ngi naa la dellu ziar a ba ñu la jaalee nga baal ñu présenté wu. waaw Fallou Ndiaye la Ndiaye production. Fallou Ndiaye ginnaaw ba ñu la jaalee ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Niang ñu bëggoon nga joxe ci ay témoignages. waaw sëñ Modou moom témoignage am yomb na trop ndax nit ku baax la nit ku baax la nit ku calme woon nit ku teel la woon nit ku amoon ambition la nit ku amoon kóllëre la tamit ndax moom nitu kóllëre la nitu principe la woon. di nekkoon koo xam ne jàpp nañ ne bokk na ci gën a dal ci làmb ji gën cee teey du xëccoo dara doo ko dégg ci dara nit ku mel noon nag nit ku baax moo koy def ko amoon sutur la it ko amoon dal la woon kon nit la woon koo xam ne nit ku baax la di suñu papa ci làmb ji kon dañ koy jaale doomam jagañaa di suñu xarit di suñu wëlëre di ko jaale monde laa di yëpp ndax euh, idole icône ci làmb moo dem ndax sëñ Modou icône la woon ci làmb ku mel noonu nag bu ko làmb ñàkkee duñ def lu bàyyi suñu ay yite ñëw ci levée de bi gunge ko ci këru dëggam tey ndax yaakaar naa loolu rek la julit mënal mbokk julitam en tout cas ñu ngi ko cat jiitu ci bàmmeelam suñ boom xëy jaaj naa fi daw si ndax nit ku baax dem na. làmb tey ñoo ñàkk monument. waaw moom li ma la wax léegi axlu làmb ñoo ñàkk ndax tey boo gisee tey yaakaar naa gars yi dañ koo yéex a dañ koo yéex a yéeg sax mais monde de la lutte yaakaar naa daa 30 minutes ñëpp dañ leen gis fii ndax sëñ Modou moo toll noonu te moo mel noonu ndax monument la woon référence la woon modèle la woon ci làmb yaakaar naa ñun ñëpp bu ñu amee inspiration bi dugg ci làmb ku mel ni moom ak ay moromam inspiré nañu ba ñu ma dugg ci làmb te kenn mës koo dégg ci coowal daraay làmb lu dal ak teey ak calme ku mel noonu nag bu demee dañ koy ñaanal rek. jërëjëf ngi la koy jaale bu baax.